you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 الله السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسيلة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 yéen sama mbokki bi yi yéen sama mbokki dëkkandoo yi maa ngi leen nuyu nuyu jullitu morom ma bu ànd ak yar ak teggin ak ak teral te leen siyaare leen lokkeel bis bu tedd bii ak liggéey bu mag bii nu may yàlla may nu fekke ko jëfe ko ba mu àgg kan di ci yaakaar payoog yàlla yàlla na ko ci yàlla boole defal defal ko jullit yëpp ci seet nag yéex a laaxale gannaaw loolu nag li muy njëkke moo di nit lépp muy def te bëgg caa jëriñu da koy jàng ba xam nañ koy defe xam nañ koy waxe te am ci jëf ko waaye julli ñu sëlmal jàkk yi kenn xamul coow ndax gone yi loolu du yar du teggin du diine gone bañ koy taamu yóbbu ci jàkk dañoo bëgg tamal ko jaamu yàlla a ah xamal ko nañuy jaamu yàlla waaye doo ko bàyyi ci lu ko neex def lu ko neex wax ca xutba bi ci julli gi la bokk moo motul ñaar rakk yi ci des ñaar rakk yi ñu julli xutba bi moo ko motul ni nga biir julli gi ni nga war ci bu ñu xutba ndax déglu ko ndax nga mën sa boo ko deful julli nit la day jàng diini te diine ji kum ump yaa ko tey téere yaa ngi fi média yaa ngi fi waarekat yaa ngi fi ñu ñu baax ñaa ngi wax mbindum ñu baax ñaa ngi fi te li ngeen bëgg xam yéen a koy xam da ngeen bëggut a xam seen diine rek da ngeen ittewoo xam yéen a ngi koy xam kon nag da ngeen ittewoowul diine ji rek diine du fawukaay te ku ci bëgg a jariñu da ngaa fi ko yàlla bëgg def ko na ko bëggee ba sa kattan jeex da tees mu jégalu ku ko deful loo ci jariñu jàngale seen diine ji te dugal ko seen xol yi te gëm ko te jëfe ko seen cër yi moo ci tax a jariñu asalaamaaleykum coowul kenn xamulooy looy def kii xol ba xamul lu xol ba ñuy déglu xamul li ñuy wax du yar du teggin du diine te lii ñor yéen a ngi koy jàng ba xam ko yéen a ngi jóge fi di dem bitim réew kenn jàngu ci arab kenn jàngu ci français kenn jàngu ci dara dem ci réew moo xam amoo fa mbokk xamoo fa kenn fa cëpp di fexe ba di jën fi ba mën a wax ak ñoom mën a jëfandikoo ñoom di wut teraanga di ko indi fii ak di ko tedd foofu kooku bu bëggee xam diine mën ko xam da di caaxaan rek. فسألوا أهل السكر إن كنتم لا تعلمون كل واحد خم كل جانغ خم هاي لين دف دين دو دين دين جيان تبي سلام عليه سكر كي الله تجيب مومك صعب هي مومك سنتوا مومك كان مومك كل يال سنبرم تموك ترى البكم تنيم كو ترى كتي أو جاري كتي أو دوتش مري جرو كان ما نقول كتي دار يي ما خدي ما خدي شاهد ذاك الفير أقلين فيسأل فخ في سول فلا سبب نبي أمور سفر على سولم waxtu buftu wala askan amul diwee sama ndaay amu fa diwee sama baay amu diwee sama maam amu fa dañu dañuy sànq suñu bopp di rek mooy man di sama morom jàngaleen seen diine ji di jëfe ko ku ko jàngal ko la tee jàng si diine teel a jaam yàlla boo liggéey booy diggaale yàlla xetam sax du fa xeeñ alaaxira këru dëgg la këru jëf du këru askan du kërug meen du kërug der du kërug xeet këru jëf la te yéen jul noog jaam ñëpp a yem noog jul yëpp a yem jul yëpp am lañ bëgg ñoo ko defal seen bopp jul bu fa def loo dara doo fa am dara leneen loola wax da lay nax rek te sëñ Tuubaa naxul kenn Cheikh Awa Balla mi naxul kenn lim den doon wax di ko jëf ngeen di koy yéen koy dégg la sëñ Ibra fa doon def ñi koy wax ñu koy dégg ñu ngi koy jëf ñu ngi koy gis la sëñ Tuubaa du bind bàyyi fi mi ngi koy jëf sëñ Tuubaa wax na ñëpp dégg mu jëf ñëpp gis mu bind bàyyi fi tomb lu na mu def ko ku ne ci mbedd mi yaaba naa sëñ Tuubaa dara de jàngale seen di ci jëfe ko bu ngeen jor ni te bàyyi pomi bàyyi leen pomi bàyyi leen pomi yàlla bind ngir ko de afa surtout ana ma xalakum abasan an ilayka laa turja'uun yàlla bind ngir ko de te kenn kenn bi bis booy diggaale yàlla kenn ku yàlla bindu fa xëy du ndey du bàyyi du sër du wàll yi du du yonent bu ko aati yow ma xiyaamati fardan da nga def yow képp la yàlla bindu bu keroogee di faral dafay diine koy jàng ba xam ko gëm koy soxal di ko jëf say cër képp sa kattan di defe njëgal yàlla yi képp sa kattan di dew teram yi képp sa kattan di ko tuubal mu yërëm la jéggal la waaye ku ne mën naa la yóbbaale te doo jàmm yàlla waxul dëgg ku ne mën naa la war a teraanga yu sax te doo sonn waxul dëgg ku bëgg teraanga sax da ngay nangoo liggéey te bañ yàq ku bëgg àllaaxira jor ju sedd te fa la nga fay bëgg da ngay ragalee sa borom di ko jàpp képp sa kàttan ñun yaakaar ci loolu képp lañ leen toppee woon sëñ Tuubaa woowul kenn gawul kenn forcewul kenn laa ikraaha fi diin defe ne ci dëgg rek ba ñu bëgg dëgg topp gi ngir yàlla rek te ku ko topp ci ku ne war na lu ci yàlla loo xamuloon amal na lu ci yàlla loo amuloon gisal war na lu ci yàlla ku ko jàdd wàcc mbooy gën boo liggéey doo joteeg moom daal loo ko gis loolu gis loolu si ko ko gis sama mas képp li ñuy wax daal du ci dëgg daal du ci dëgg muy mban di sama ku la woowee falo jaam yàlla ku doon booy duggee yàlla xetam sax du fa xeeñ sëñ bi ñu tuubaal nañ ko bàyyi sëñ bu wàcc na jëf na ñëpp gis mu wax ñëpp dégg mu bind ñëpp ba bàyyi fi te mënoo ci su lu wuuteeg alxuraan sunna ku ko tuumaat da ko da nga ko gàllaq te walaay da ngeen xam tooñ ko baax baaxul bu keroogee diine sam du diine fo du diine caaxaan jànga leen seen diine ji te gëm ko te jëfe ko te yàlla kenn ku ne bala yàlla bind sa biir ndey kenn fettilu kenn kenn dimbaliwu ko ci moo def la ak toqin képp goog man yi ba mu neex ko mu def ko aw lumb ba mu neex ko mu def aw suux ba mu neex ko mu def ci ay cër dul dundal ak sa ndey del sàmm yàgg sa ndey ba mu soob ko mu génnal bu ko neexee boo leen dundal bu ko neexee rey sa ndey dundal bu ko neexee rey la dundal sa ndey yuxrijul hayya minal mayyiti wa yuxrijul mayyita minal hayyi moom rek moo ko mën nga nga dund ma loolu sa bopp dara sa ndey di jëmm mu def ci moom ay kéemtaanam yu mat a yéemoo yow mii mu jur boo xiifee mu jox la wenam nga nàmp te bu xëytee du la ko jox nga lekk bu sawee du la ko jox nga lekk te lépp jëm génn jëm jëm ji kaman loolu googa teqante la yar looy dimbale ba nga mën a sopp dara nga maa gën a fett ne lu ma neex def nag tara diw laa yaakaar diwlu yoonam sa digg yàlla bàyyi duñu diw mi nga yaakaar day day aw si yoon day aw si yoon bi ak tegtal si ngal ma ko saaw ki ngeen jote bu ceeb loolu ca aw lu mu wax du dëgg boo ci nangu taw yaa mujj leen yàlla suñu borom jaamu leen yàlla suñu borom jaamu leen yàlla suñu borom moo nu bind de te ku ci des doo gis sub sëñ doo gis kenn doo gis ab yonent doo gis kenn boo demee sa benn noonu sëñ Tuubaa wax na ci wolof wax na ci làkk tomb na lu ne def na ko lii ngeen di bàkkoo yéen béykat yi ket sëñ Tuubaa firu dinañ ko pir mu leer nañ yéen ay béy ca waaru naa làkk dem na kóoni bàgg war na mbaab wuuree dem na këng lunu doo doy jaan lee mu jar loola ngeen wax ko taxamu leen ko sëñ firi sëñ Tuubaa firi leen ko na kon mooy balu wopp ndee ne calax ngopp ndee dugg na la docteur dem ba tële na saye jabar yi dem ba tële mënuñu ci dara sëriñ ñaan ba tële mënuñu ci dara loolu mooy lakk dem na kon ku ne jaax na tekk bàyyi yàlla mu rocc roo sa roo gi ci fab la teg ci jaar gi mooy bàgg war na mbaam ñu jëmale ci armée te kenn mënu ci dara wuréew dem na këng mooy bi la tegee si buntu bàmmeel jëmale ci biir lu ndaw da jaay leen ñu dem leen mu xam lee mu jar leen mu xam loolu mooy bu ñu duggee si bàmmeel ba suul la gën wan la gannaaw ku la ku lu sa jëf bu bon gi nekk di leen sànq rek loolu wax caaxaan rek la sëñ Tuubaa sànkul kenn sëñ Tuubaa bi ñuy bëggoon tuumaal da ngeen ko lay ak te lu mu la jéggal jéggal yàlla dina àtt si si moom sànq sa bopp sanq sa bopp man fi ak ànd ko lay sàkk di tudd sëñ bi loo joteeg sëriñ bi suñ borom mi bind benn yonent képp bu ko wàccewul wàccee ti téer digle lim tere bàyyi ak lim digle tere lim tere buñ dee gorte di jul loolee rek leen war a sax te wàcce na ñetti téeméeri yonent ak fukk ñett yónni leen jox leen di téere ku ne wax ba dajal ñii ñu rey leen ñuy toroxal li ñuy yeew li ñuy tëddee kaas loolu def na ñu dëgër ca lañ lañ leen yàlla sant ba mat sëkk te taxul ñëpp jug saaba yi ànd ak yonent bi di digle ko tere ba sol na suñu borom ne ko yaa ayyuhan nabiyyu jaahidil kuffaara wal munaafiqiin mu bàcc jël si xeex xeex fu ne te taxul ñëpp jug saaba yi dese fi diine ji di xeex ba tasaare ko fu ne yóbbu ko taxul ñëpp jub kon Sëñ Tuubaa mënut a tax ñëpp jub ala di mooy mun ko kenn mun ko ko ne da nga ñala ñala déggal te no nga ande yor nga mëna sowe ñi tuddoo sëñ bi te jëf te aw ñi sëñ ñak jëte wuñu sëñ bi dara muy man di sama morom ke sante Mbàkke ke sante fa fana ci yam la wax ñëpp la wax fay nit ñu baax nag saaba yi nafa fa yonent yi nafa fa yi nafa fa xutbul axtaab ne borom njëriñ nekk fa loolu la woon leen ko ngir lislaam ñun ñu ba lislaam bi tax ba ak si ci noonu noonu la defee dañuy fooyee rek boo liggéey ni fekk leen foofu ay nax la de ku bëgg a fekk fañ nekk da nga aw ci yoon ay ma awan nga yaa ngi leen seen diin yi di defe ko te gëm ko te futti ku liggéey tey liggéey liggéey bu jub di nuyu seen ñaq ci lu lew di ko yàlla tey gannaaw wàllu diine ji wàllu ko dina génn ñëpp war nañ soppi ko na ngeen xam ne réew mi liggéey amu fi liggéeyatuñu ndax mag ñi mënatuñoo liggéey gone yi nanguwuñoo liggéey te loolu tas sa adduna képp lay doon te mboolem li ngeen di def liggéey ko gën te du daal lu ñàkk jom rek ragal tàggawee naaj bi képp te suñu maam yeeg suñu bàyyi di meluñu woon noonu ba suñ tuba feeñu gën a xéewalam it ñi amoon jom daa den daa dem ci àll na fa dal fendu bu jaa fekkub jaa ñuy dupp ko fas ko ne defu teen joroo fi bant ba ñu am ndox ñu ne diw bën na teen ñu ne kër kër ma Jóob kër ma Sàmb kër ma Fall kër ma Xuma kër ku ne loolu jom rek la woon te boobu Sëñ Tuubaa feeñagul asalaamaaleykum gannaaw bu ñu jógee nag ci jullikaay ba ñëw ci kër gi dafa am tuuti noo bëgg mottali te bëgg ñëpp di ko te jàpp ko loolu nag feedul waxukaay moo tax ma jóg ci kër gi loolu mooy yëngu-yëngu addu adduna yi ñu dëgmal muy yooyu ñuy wax naa bëgg buñ ci àggee ñi koy yëngal ak ñi di yëngal la ñëpp ñu déglu li ma leen wax bu baax xamal naa yëngu-yëngu yooyu ñi koy yëngal ñu koy yëngal ñëpp ak ñoom di ko yëngu maa ngi leen di xamal dëkk bii ma yilif di Daaru Manaan ak Touba Roof ak Daaru Minam ak dëkk bu ma am kër ak fu sama kër ne mayuma kenn defal la ñuy wax mitin mayuma ko kenn ñëpp laa ci yemale nag kenn def fi mitin ci yëngu-yëngu yooyu jub ñi koy yëngal ak ñi koy ànd di ko yëngal ak ñi leen koy yëngal xam ne dëkk yi ma yilif mayuma kenn def fa loolu ñuy wax mitin mayuma nag ku fi ñëw nanga nga war a demee ci kër diine ba ñu mën ko am xar wala ba ñu mu ko nit loolu sama yoon wi waaye loolu ñoo xam mitin la ak dajale mbooloo ci lenn lu yàlla taxul daal mayuma ko kenn ci benn dëkk mu yilif ne ko Cheikh Sidi Muxtaar di bañee ci Touba ni laa koy bañee ci Darman ak Touba Ruf ak Darman ak fu am kër nag ci senegal mayuma ku kuy yëngal yëngu yëngu yi ne mati mayuma ko kenn loolu na leer ñëpp ndax sëñ bi moom dëkk bi di Cheikh Abal daf ma daa wax ne Daaru Manaan am néeg la ci biir Daaru Muxti Daaru Muxti kër la ci biir Touba Touba mooy dëkk bi Serigne Touba mooy borom dëkk bi kon nag li borom dëkk bi bañ ci dëkk ba ci dëkk ba fii ci biir dëkk bi la te Sidi Moxtaar di bañ fa Touba moom lay bañ fii ci boo fi yaakee ndimbal te di ko fi sàkk am fi ñëw ci ndimbal daal ñëw ci boo fi yaakaar daal ma ngaa lom dem na sama yoon ñëw ci waaye mitin moom mayu ma ko kenn ci dëkk ma yilif wala kër gu ma yilif loolu na leer ñëpp wasalaam